moom journée moom boo xoolee saa su ne day taaru bër bu ne bëgg na cee bëre. Ndiaye dundeewul lamb day dundal lamb. a ah, waaw daa mel ni muy borom site bi de xanaa ah kon nag Ndiaye su ma ñëwee sa site faaw ma wax lu baax. Fallou Ndiaye. Fallou Ndiaye moom mooy waa number number one ne nañ mooy lan. numéro un. Messi de l'arène wala nan lañ ko wax. mooy Messi de l'arène numéro un. man maa ko tuddee le Mbappé de l'arène <laughs> ndax mën na li muy def. tuddee tuddee nga ko sama waay waaw Mbappé laa koy tuddee xam nga ay Messi yi dafa xaw a yàgg da nga koy tuddee la Mbappé. le 22 diggante Mor Kankang ak Boy Diop. combat bu garaaw moom moo ko décroché waaye li mu décroché moom xamu ko sax waa li mu décroché xamu ko xëy na nag lamb Mor Kankang moo gën a andi état de forme yi li ñuy bañ duggee bañ ñëwee man coach en tant que coach ma gis moom mooy Mor Kankang moo gën a andi état de forme bu jaar yoon waaw moo gën a andi état de forme bu jaar xëy na nag Diop de dafa doon boo xamante ne nii mbër la boo xam ne njool na mais doole ji moo ëpp moom ni mu tool te Mor bu amee lu muy xeebee booy bi tuuti booy bi koy daan moor na mel ni Balla Gaye lay bëreel wala Modou Lo jox ko cër. na jox ko cër. na jox cër booy bu ko joxul cër booy bi dina ko dina booy bi ko ruusoo fii digg ba jëg ndar kaam parce que moytul ma mbër boo xamante ne mustaam defet mbër bu mustaam bu mustaam defet chaque jour day su ñëwee confiance bu muy dégager. ak ak ak ak luñ koy luñ koy yuuxoo da koy gën a yokk doole te Diop de bu jógee dëkk day jóg bu jógee ba doŋali nga ne Mohamed Ndao Tyson a ngi nii. moom mooy moom mooy. bu këppewee soow bi nga ne doomu lebu piir a nii di dox Mor Kankang ca pecc ba kële mu léebi bu ko àndee nga ne nga nga nga dellu Saalum wala nga dellu Bawol. yéen ñaari mbër yi dañoo mel dañoo xaw a tolloo dayoo torop ci xaw côté mbooloo ndax Mor Kang Kang Bawol dañ koo bàyyi xel. Bawol liñ ñàkkoon si làmb lañ bëgg a récupérer waat te jàpp nañ ne Mor mën na koo andi mbay guy mën na koo andi mais xëy na ñu jàppale ñu jàppale Mor donte jàppale ñëpp baax na ñu jàppale Mor mu dem moo gën a yomb bu mbay guy gi parce que Mor boo xoolee weccatu bëre moo ko ëpp mbay. Ah. waaw dama lay wax li nekk ci man rek laa leen. dama ne ñu jàppale booy booy Mor Kangang moo gën a moo gën a yomb ñu jàppale gële ñu jàppale mbay guy gi parce que wecc du bëre bu nekk si moor nekkul si mbay moo tax ma ne la combat boobu ku xef mun ngaa bañ a gis jël. diggante Mor Kangang ak Boy Diop. diggante Mor Kangang Boy Diop. Anta sans frontière daane bëre bi nekk ci Boy nekkul ci Mor Kangang coow li bari lan. waaw am na ñoom ñaar xam nga seen bëre yi dañoo xaw a dañoo wax moor Kanga pour nga pour pour nga dominer ko si combat dafa yomb parce que day forcer kele ci seetaan nga si moog Youssou Ndour daa forcer kele ba daanu. mais foofu Youssou dafa Youssou dafa gën a diis. waaw moom laa lay wax. doole moo ko fekk. waaw Youssou Ndour moom jàppal na Youssou li mu mën a mën bëre booy bee mën na lu toll noonu te booy bee mbëru tànk la Mor bu mu forcer te chaque jour bu mu yaakaar mu ëpp booy bi doole. parce que bu ko defee si xelam bés bu ñëwee si biir géew la mu yaakaaroon amul moom dooleem day wàññeeku na jàpp ne Balla Gaye la bëre wala Modou Lo boobi dafa dangereux de boobi bëre na fi façon bëre bu nekk boobi ba mu booyu damay fàtte tudd booy ñaari tali bi. sita bu andi. non sita bu andi rek daan ngay xam ne booy bii non booy bi foowul. jeex jàmm jeex jàmm. ma songale ko sànni fële jeex jàmm nga xamante ne ku ne nil naax moom fii Diop mbëru dëkk la dafa am fu mu teg bëtëm xale da ngay xam li nga bàyyi ak fi nga jógee xam fi nga war a jëm mais combat boobu ku xeeb bool moom bool moom làmb ñëpp de ko war a décorer si combat boobu li mu décroché xamu ko te spécial bi xaw ma kan mais leer na ma day neex. Fallou Ndiaye lu mu tëgg ay waaw xale yu bees sax mais mo nee naa la xale yi mujjee génn yëpp Fallou Ndiaye waaw mais parce que Fallou Ndiaye xam na li mu bëgg xam na li ko war si làmb te xam na li mu bëgg promoteur xale yi moom la luñ ko mën a décorer décorer nañ ko décorer si làmb te xam ne mooy promoteur xale yi mooy ni xam nga mi ngi li li Wolof naan ah dëgg bu ko ragal dëgg fetal buy tàq la boo ko sóoraalee doo ko dóor moo fi ne Fallou Ndiaye. kon Fallou yaa fi nekk. yaa ngi may wax nekk tey <laughs> wax loo ma de. ndeysaan nee na Fallou moo fi nekk bu baax a ngi noonu. ca Bouba ak caatu Faas arbitre ngay xool ndax nit na ñoom ñu nuñu ndeysaan diggante Bouba ak caatu Faas acca mu ngi noonu ak caatu Faas acca arbitre ngay wax ak ñoom nee na leen man maay bord du terrain sifflet moo leen di boole sifflet moo leen di tàqale consulté na ay jugeam laaj na leen diggante Bouba ak Thiatou Fass Bouba ak Thiatou Fass Bouba ak Thiatou Fass spécial bi. spécial bi niñ taxawee ami baax na de waaw. Bouba la ak Thiatou Fass waaw Bouba Bouba numéro ak Thiatou Fass. waaw ak Thiatou Fass Thiatou Fass moo ne kanam. boobaa moo féete nii. mooy ku xees ki. ku xees nekk Thiatou uh-huh. loxo mën naa jóg na xeex bu neex am na fi gis nga. wëpp wëpp wëpp day bu ñëwaatee dóor la. benn mépp moom boo ñëwaatee nemmale la. nda ndeysaan arbitre bi nee na la bëreel arbitre ñi dañuy naxante bàyyi leen. ñii moom dafa guñ lu waye moom. ndeysaan pom du neew. salaat du ñax. waaye saan géew bi defar naa ko dóor daanu tey bari na de. tey bari ay waay lamb ji ni mu ubbee. ay waay delloo loolu. sànni na góos ay waay samba remis na ko maytul xeex ba taw na ko jël kii dem bi la bëgg moom wax na dëgg de yàpp yëpp mu melee ne res semañ du si amu yoon ñaari mbër ya jàppante nañ ami sa koy ngoobu déet déet mbër du dox ak tànkam neen loolu wëgguma ko hop hop hop du imposé mais xale bi osé na de baax na baax na sa waay da koy rotal bëgg mu ñëw loolu du dara hop hop hop hop ami xamoo loolu sa waay da koo tëru. loolu lu mu tudd tëru. tëru waaw mi ngi mel na ngay rëbb benn booy. daw ba fenn nga nëbb ko noonu la ko def. diri ko ba pare mel na ku daanu bu dawee ak alir da koy ronu rek jub. sey la hop hop hop miin la moo tax booy bi dawul ñëw da koo wéer dënn bi rek wàcc taat oo sa ginnaaw bëre bu neex a ngi nii épercule koy jeexal loxo bii mu téye si ndeyre mu dóor ko benn. mu dem ardo sax a tane borom ngembul xong lee mu dóor buubaa benn épercule bu saf mu siggi moo gën mu jàpp téere yële nee naa la mbër day àgg foo xam day soxor waaw fa muy parce que fees sax bu yàggee na ngay wut jaasi ah. ndax am na foo xaye paaka du ko dagg ndeysaan nga toj ba mu nooy nga doog a jël paaka ba dereese gisoo toj nañ ko moom hop bu duggee rek xeex ba jeex maa wax booy bi ah, ay buubaa mi li ngoobu neex na de gis nga ko ay waay samba moytu loolu buubaa bul forcé bul forcé borom ngembul xong daa osé caxabal la koy dàq ji de maa la wax lii ba mu jàpp ngembul waaw waaw léegi mu jeex de ay waay gis nga ko nooyagul tojal ah waay yow foo ne ñaari épercure rek mu nooy kon xanaa entraîné wul ah delloowaat nañ ko nee nañu rëm rënkum nag neex na si ñaari góor yu xam ni tolloo doole. ñoo nga jàppante de. waaw looloy rënkum. rënkum daje. waaw rënkum ak ñinkum. ñinkum mooy àgg si suuf. rënkum mooy roofoo nii. roofoo ndaysaan roofoo ak a neex. roofoo bu amul épercule. waaye roofoo boo xamante ne ay épercule lay am moom. boo jëlee sa reliquat doo fa fekk dara. ndaysaan benn booy mos nañ kaa jox reliquat bi mu nekk 3500. ak dóor yi ñu ko dóor. booy bi naa ma joxuñu ma sax paasu tëkkee keroog maa ko dolli 2000 muy 5500 wallaay wallaay paasu tënkee Grand Yoff di doon 4200 ay waay Samba bu la ma la waxoon lu ma la waxoon hop hop hop hop hop hop booy bi da bu ndaw gën a garaaw bu ami doy na waar xale ma leen xoolal mbooloo ma hop hop hop hop xale yaa ngay wàcce maa la wax loolu pom du ndaw jëlal sama caméraman jëlal ma loolu jëlal ma buuba ma ay waay samba oh sa caméraman bi dese naa boy eh da tuur loolu mooy tuur buuba daan na caatu faas eh loolay déeta